le fonds Médina Baye. D'où l'occasion de lui rendre un hommage mérité pour avoir concrétisé ce vœu du Cheikh al Là aussi, il faut ajouter quelque chose. Lorsqu'il a lancé cette levée de fonds, Cheikh Maï a demandé aux talibés à 1000 talibés d'apporter 1 million chacun pour que cela fasse milliard maanaam bi Papa Cheikh taxawalee fond bi ba pare Cheikh maa yi dafa woote ne li mu bëgg mooy taalibe bu nekk joxe 1 million daanaka junniy taalibe buñ joxe ku ci nekk 1 million milliard mun nañ wax ne àggaguñ ci milliard waaye jege nañ àggu guñ ci waaye jege nañ lan mooy mission wu fond Médina Baye mission bi mooy maanaam lépp loo xamante ne pays bi mu koy sumb fond bi taxawu bu ko mënee financé lépp mu financé ko su ko mënul it muy def ca la mën waaye loolu mooy mission principale fond bi maanaam lépp loo xamante ne initiative la maanaam projet la boo xam ne ci pays bi la jóge te xaalis bi gërëm ko waa Kër Baay gërëm ko gërëm gërëm projet boobu loolu fond bi daf cee war a taxaw te loolu mooy wane ne domaine d'intervention bi maanaam ci lan la ñuy yëngu ci li ñuy yëngu mu ngi ci lu jëm ci njàng ak jàngale lépp loo xamante ne mu ngi ci jëm ci mbirum wér-gu-yaram mbirum ndimbalante ci àddina développement infrastructure donc la mission est de concevoir et d'apporter assistance technique et financière pour la bonne réalisation des initiatives et des projets en adéquation avec le Cheikh al-Islam. Les domaines d'intervention l'éducation, la formation, la santé, le social, le développement, les infrastructures et l'utilité publique. Réalisation. Institut islamique bi ngeen xam ci maanaam dem tudd institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass mooy école arabe bi sax bi fond bi taxawee rek sëñ Maye Niass indi bu nekk pour xaj dafay indi dossier ne bâtiment boo xamante ne mu ngi fi bañ ko complété ba léegi bâtiment bi mënul fexe ba weesu fondation bu sañoon fond bi àgg def liggéey bi ba mu ko indee moom lañ njëkk a saytu ci projet te moom lañ njëkk a liggéey ci projet boo demee bâtiment bi nga xamante ne juróom-ñeenti classe la classe bu nekk. war a mën def lu wër juróom fukki nit wala lu ko ëpp mu nga mu ngi taxaw mu ngi mu ngi mu ngi fukk dañu fekk xale rëy mooy maanaam kër gi ngeen di gis ñu def ko ci néegu baay bi dem war a déncit war dem war a denc denc baay yi tuddee ko bibliothèque ñii di koy ooyee maison d'archives Papa Cheikh ba mu ñëwee daf ne dafa bëgg fond bi àggali ko ñu ngi ci bu ngeen gisee bâtiment bi xam ne sori fi ñuy fi fi mu toll ku gis xam ne sori te néegu baay bi tam dañ xalif bi dafa ñoo woon ci fan yële ne bu sañoon ñu taxaw ci parce que néeg bi fi ne dafa am mu ngi waaj a bi taxaw na ci waaw léegi ñu teg ci yoo xamante ne maanaam dañ ko joxe bu ngeen xoolee léegi depuis daaw bu gàmmu jotee te kenn dootul laaj addiyee shérif fond bi moo koy joxe fond bi mooy génne fukki million génne na ko daaw xëy na génne na waat na fukki million pour addiyee shérif am na shérif bu fi feebaroon ñu waroon ko yóbbu bitim réew faj koy shérif bi dugal na ci loxo ca fond bi dugal na ci loxo am na ay doomu baay yu jigéen yu tawatoon ci jamono yii peesu rek fond bi tam dugal na ci loxo loolu mooy wane njëriñu fond bi lan moo lan lañ war def mooy su ngeen xoolee li ñu jot a dépensé bëri te li dugg bëreegul waa ngeen di wax ne leen milliard soxla woon rek amaguñ ko te dañ ne woon buñ amee ñaari at ba ñetti at lu bon bon war nañ dem ba war a mun a am cinq milliards kon nag taalibe ñu leen di woo ci fond bi ñu ngi leen di woo ci fond bi te xam ne fond bi seen fond la te fond bi njëriñal pays bi la te fond bi bàyyi lay liggéeyal kon nag ñu leen ci woo ndax ah li nga xamante ne mooy moo nekk ci suñu kanam bëri na li ñuy sas liñ teg ci suñ dodd bi bëri te fond bi du kenn ku dul taalibe yi kon nag taalibe yi ñu ngi leen di ñaaxaat ngeen gën góor góorgóorlu ñu gën ñu gën a góorgóorlu pour dugal suñ loxo ci fond bi wasalaam